ça ça tout ça on sait match bi nangam nangam nee na manifestation yi Askan Wi. Hmm. ak procès Ousmane Sonko. kii di président Macky Sall moom daanaka dugg na ci géew bi. Hmm. noonu lañ ko mën a waxee Macky entre en scène ils ont essayé d'écrire en artistique nee nañu président bi li nga xam ne wax na ko secrétariat exécutif APR nationale moo di ne du manifestation yoo xam ni voilà day ñëw jàll rek. Mm-hmm. moo mooy tax dëkk bi voilà euh, état bi daal di daal di nërmeelu loolu du am. Mm-hmm. Euh, kii di chargé propagande ak mobilisation euh, di Farba Ngom muy mel ni muy fàttali far ba Senghor au temps de Wade message Idrissa Seck bi noo xaar tey. Mm-hmm. am na nag lu si am. mooy mbiru troisième mandat bi ak violence yi am. dafa am ay voix discordantes en tout cas ñoo xam ne ànduñu si mu di Mary Teuw Niane ak Arona Coumba Ndoffène Diouf ñoom ñaan ñëpp ay candidats lañu potentiel aywa Dakar Matin présidentielle 2024 ci la addu dafay laaj nag ndax c'est la fin du parrainage ñun moom dañoo bokk ci ñi gëm ne parenage warut am mm-hmm. caution ba ak parti politique ba ak indépendant ba au-delà d'enquête wala part des enquêtes morales lañu war a xool ndax kii yeyoo na il y une commission dotée et kii est appelée à le faire ñu xam ne kat ñii ñoo la commission nationale indépendante électorale bi nga xam ni moo la gérer mbir mi ñu tànn ni ñii ñoo war a nekk candidat mais pas ce parrainage là bi nga xam ni en 2019 moo justifié cinq candidats yoo xam ni la yàlla xam doy na. mu jur li mu jur. loolu nag deux mille vingt quatre bi incha allah opposition bi bëggu ko nangu te xalaatu ko nangu mais l'erreur de l'opposition c'est d'avoir accepté le premier parrainage il fallait pas l'accepter en deux mille dix neuf donc loolu la Dakar Time ñëwee tey direct news dikk na li ñu doon waxtaane sànq ces voix devenues aphones Alioune Fall Alioune Fall Sall. kii nekkoon na sama directeur au journal Le Matin en 2002 Alioune Fall bi hmm? nit ku baax la nit ku baax la Abou Abel Thiam sunu xarit nit ku baax lañ leen xamee bokk xam léegi léegi moo waxee baax am na keroog naan ma non non bàyyi naa nit ñi ñii du ñu ay nit yu baax waaye ma ne ko sëñ bi déet man baax la ma leen xamee la ma seqoon ak ñoom cay jamono baax la woon xaw ma nag léegi nu mel ndax gëj na ma leen sax gis gëj na ma leen gis gëj na ma leen jot waaye daal ba ma leen di xam nit ña baax la ñu xaw ma nag léegi nit ka baax baax nag baax nag du denc nit. Mm-hmm. nit mun naa juum mais baax du denc nit. donc Abou Abel euh, Souleymane Jules Diop El Hadji Amidou Kassé lui c'est mon ami sama xarit la sama professeur la nit ka baax tamit moom la ma ko xamee. Euh, Benoît Samb sunu mag Abdoulaye Diouf Sarr voilà ñii la ñu wax ni déggatuñ leen et à juste raison déggatuñ leen c'est vrai mais bon xam nga la xew seen biir moom wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko. xamuñu itam lu tax ñu noppi waaye ñii ñëpp ka si nekk avant nguuru président Macky Sall di falu wax dëgg fa yàlla li ñoo taxaw di wax nii tey ñoom moom lañ daan wax wax dëgg yàlla li ñoo taxaw di wax nii ñu naan nu kaa wax ñoom dañ ko daan wax bu baax di ko wane ba baax itam xëy na nag station yeeg position yi ñoo changé hmm? dikk nañ ci Idrissa Seck direct news Marie Thérèse wala plutôt Thérèse fay Diouf ak Mame Mbaye Niang Thérèse moo yore FONGIP Mame Mbaye Niang ministre du tourisme ñoom ñaar dañu fédérer seen ay force je pense sur le plan du travail hein, en termes de collaboration FONGIP ak ministère du tourisme voilà <clears throat> ñu dem ci enquête journal kii moom sama journalu bopp la moo mook l'observateur c'est deux journaux deux éditions yoo xam ni sanu ay bébé lanu leen di sos mu ngi toog sanu ay bébé lanu euh, enquete Mamadou Wane maa ngi laa nuyu ak Cheikh Kouyaté Euh, entre hausse et pénurie yaa ngi daan wax sànq. Mhm. mbirëb suukar bi ci la dikk présidentielle 2024 Macky Sall dob si troupe xam naa nag président Macky Sall xam naa yow président da nga nar a njuy ñii njuy bu metti daleen leen a xeexloo ba nu xeex ba pare mu leen boobu diw mooy seen candidat président yàquma plat bi de. Mbadou yàquma ko de les syndicats de la santé montent au créneau. Hmm? libération sur convocation du docteur kër Niang hmm. nee nañu tey il risque le déferment soi-disant dama xamul nag déféré par rapport à quoi sur le cas Sonko sur le cas euh, plainte bi ñu ko adressé pour l'autre la euh, sunu mbokk bi fii wàññeeku te dëkkoon nekkoon ca mairie bu Bamba Fall ba Doudou Fall Mamadou Ly ñu naan ko Doudou Fall hmm. ah yàlla na yàlla yërëm kàttanal ay bokkam euh, voilà loolu daal lañ ñu wax ci ci fii interception violente de migrants en mer la conduite scandaleuse des gardes-côtes libyens loolu du lu bees. Hmm. gardes-côtes yi <laughs> Méditerranée bi li ñu nekkee ñun ci géej gi loolu du lu bees nu avons perdu plus de 3000 sénégalais jeunes sénégalais de 2017 à 2022 ci li ñu wax plus de 3000 sénégalais maanaam. daanaka ci ñaar ñetti at ñeent ñàkk nañu lu lu raw li ñu ñàkkoon ci bateau le Joola tranquillement dans la mer les Sénégalais meurent tranquillement et tranquillement ça gêne personne mm-hmm. y a de débat dessus y a pas y a y a pour un pays immensément riche sous son sol ou par son sous-sol mais on en est là ñu ngi fii lañ toll ñun quatre heures le CUDIS prône un nouveau renvoi procès Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko le 30 mars mooy suñu kilifa yi docteur Cheikh Gueye je pense qu'il faut suspendre les manifestations mais en même temps renvoyer le nouveau de nouveau ce procès que tout le monde craint réew est que mun naa doxee noonu parce que benn procès moo am ñëpp ragal pourquoi ñuy ragal du leen bàyyi Ousmane Sonko mu dem tranquillement ci affaire ba li am le 16 lu ko indi kii bu ko neexee mu dëpp dem këram ngeen nguufaan ko forcé ko asperger ko doon c'est quoi gàddu yóbbu dem ñëw après awaat ci suuf encore jàpp El Malick Ndiaye jàpp keneen jàpp keneen waaw fausse nouvelle parce que dañu ne way ne El Malick nee na benn agent BIP moo ko def donc il faut mu ñëw wane ne agent BIP la mais bu dee loolu di ngeen jàpp Sénégal yépp parce que Sénégal yëpp ñoo taxaw ne waa BIP ñoo ko def foofu la ñuy wax président Sall yow ak ñi nga àndal te dañ na kaa ñaan dañ lay supplier ñaan faut plus de tact vous n'avez pas besoin de cette surpression que vous mettez aux gens parce que surpression lan la exploser rek la bu yeggee fenn fii day exploser sans gagne sans perte ñëpp génn mu jeex lu ñu am jël est-ce que jar na ka est-ce que jar na tey ñëpp génn président Sall nga taxaw daan ne arme def leen tiire leen il faut eh, président loolu bu ko sax xalaat parce que cette armée là elle est républicaine te sunu ay bokk lañu mm-hmm. yow man ma am xarit boo xam ni xaritam keneen ak keneen kii cousin am la kii nijaayam la kii kii sama nijaay mooy général bi sama euh, magu papa mooy colonel bi sama rakku yaay mooy commandant bi sama kii nga yaakaar ne yow da ngay ñëw taxaw ne nit ñi ñooñu faat leen seen mbokk yooyu ñu def ko duñ ko def de président bu la si kenn dugal bu la ci américain dugal bu la ci français dugal wallahi azim même bu dul dara sax commandant wala général wala colonel ku mu ci doon bu dul jullit di di di catholique bu dee catholique day dem mees am na loo xam ne di dem may ko ko après on me dira ouais oh, tu es sa ça ça pas comme ça fii Sénégal la bu dee jullit am na sëriñ sëriñam bi dina ko ne eh li may dégg noonu lu mu doon fii du dëkk yooyu nga xam gëmul dara de il faut ñu am tact quoi wàññi tension bi jaru ka wàññi nappe bi jaru ka te kenn ko nab sénégalais da ngay naxanteeg moom. Mm. loolu moom président Sall billaay dañ la kaa wax. sénégalais mais sénégalais jikko ngor rek mu mu delloo la ko. jàmm na ñooy. Mm-hmm. mais jaay ko doole ni force ni loolu sottiwul de te président nag am na ñoo xam ne ñu mën ñaan ñoo xam ne ñu ngi laa ñaanal mais am na tamit ñu mën a ñaan ñoo xam ne ñu ngi ñaanal ñeneen ñi. Mm-hmm. te am na tamit ñeneen ñu mën ñaan ñoo xam ne ñu ngi ñaan nga wàcc comme ni mu amee ñu lay ñaanal nga toogaat donc mbir mi léeg-léeg ñaanalante la. te yàlla day àtte dëgg. ca ñaan yàlla donc ca ñaan yàlla donc président vraiment quoi vraiment vraiment lii lii pression bi kudis di wax nii di ko craindre ni jaru ka amu fi c'est-à-dire de 2012 à maintenant lu tax may wax nguuru président Macky dañu manqué tact mooy coow yi fi am yépp mënoon na ñàkk ñi fi ñàkk seen bakkan yépp mënoon na ñàkk on aurait pu y aller euh, Sonko procès avec Adji Sarr ok il va y aller tranquillement il n'y a pas de problème procès avec Mame Mbaye Niang il tranquillement il problème mais pourquoi jël ay forces de sécurité ñëw taxaw buntu kër jàmbur c'est de la provocation pourquoi pourquoi pour pourquoi am na loo xam ne su tegoo si yoon problème du am Adji Sarr Ousmane Sonko doon si wax parce que dañ cee wax ba sonn mm-hmm. mais lu tax ñu wax ci ba sonn parce que dafa am loo xam ne leerul suñu ay bët te dafa jur coow su ngeen demee di toppatoo benn dossier ay ojo génn ci waaw du ngeen considérer ojo yi soo considéré wul audio yi ki nga sixal ne tegoo mbir ci yoon mm-hmm. mu jur frustration donc ñàkk doxal yoon moo indi pression bi léegi nag pression bi pour nga dénouer ko pour nga dindi ko ko teggil nit ñi da ngeen bàyyi jàppe bi bàyyi leen nit ñi ñu ñibbi seen kër yi waali boja boobu ñu jël takkal ko bracelet foo wat waay mel ni ku jor ay xar pour lan parce que àdduna day dox te position yi day changer ah attention quand yoor yoor Serigne Saliou maa laa nuyu Guèye maa laa nuyu bu baax a baax a baax a baax la candidature de Macky pour un troisième mandat est une grave entorse à l'éthique et à la morale Boubacar Camara mm. Kama président PCS Diengou Tabax il a dit beaucoup de choses dénoncé na lu bare Eh, eh, président lii tam dëgg la xëy na ñi ànd ak yow du ñu bëgg a dégg lii mais dëgg la. Mm-hmm. sur le plan moral on a un problème. ngaa la on a un problème. Mara se déshabille critique moom fii la ko kal ci déclaration Idrissa Seck bu tey bi Macky en scène de combat L'As journal bàyyi leen terme ci bàyyi leen ma ay waay leen dimbal leen nu taluñu ay sedd de combat combat kan combat kan léegi la wax leen nu Amadou Ba maa ngi directeur journal bi Amadou sanu xarit la Amadou nuyu ne ma la ba baax combat par rapport à qui quoi on peut vous ne pouvez pas le pouvoir ne peut pas dire aux Sénégalais jàmm jàmm jàmm ba pare di teg provocation di teg xeex te xeex boo xam ne bu coolee ba cool daw ngeen di def ñu waxante dëgg rek ils sont plus de bon Karim Wade le PDS annonce encore l'arrivée de Karim Wade yàlla na ñëw ak jàmm ak salaam yàlla na ñëw ak jàmm ak salaam yàlla na ñëw ak jàmm ak salaam Mary Teuw Niane pour la troisième fois alors le mandat série de manifestations en perspective du procès Prodac semaine de feu à Dakar pourquoi semaine de feu à Dakar pour Pourquoi il s'agit juste de bu leen jël force de sécurité dem di ko teg buntu kër Ousmane Sonko bu leen empêcher marche le 29 bi da gars yi dañu bëgg a marche bàyyi leen leen ñu génn marche bu ñu paree duggaat seen kër yi xam nga yow boo nee àtte xeex àtte xeex eh kaay àtte xeex c'est parce que am na ñaar ñu taxaw mais boo nee àtte xeex génn fekk kenn rek taxaw nga ne ana moo kan la ñu ne la non dafay waaj a xeex ñu ne la kan lay xeexal kan. bàyyi leen le 29. les gens les gens génn yor seen ay pancarte benn ci non au troisième mandat bu boobaa kenn du toj kenn du yàq non au troisième mandat. mais la ñuy bañ la police encadre ñu dox dem dellusi si non non au troisième mandat. phase boobu la ñuy bañ. ma ne nguuru Sénégal ci artistique laa la wax artistique nguur gi nag il ngeen baal ñu dinañ leen ko wax il faut ngeen ay tuuti il faut affaire bi ànd ak feeling tuuti hmm. ak peps nekk leen ay artistes nekk leen ay artistes. gars lu ñuy wax troisième mandat du fi am ok nañ ko wax am problème vous vous voulez défendre le troisième mandat défendez-le. c'est simple. trouvez des arguments parvenez à convaincre les populations que oui troisième mandat il le faut pas la limitation des mandats parce que baaxul ci réew mi. vous avez vu les Émiratis vous avez vu l'Arabie vous le Golfe comment ils fonctionnent ils ont des ministres qui durent parce que ça permet de nangam nangam défendez ça ainsi. boo newul si yoon sax da ngay rafetal yoonal tuuti sax waaye yow newul si yoon boobu bëgg a dóoree du sénégalais yi constitution bi président bee ko wax kàddoom waaw bi nag na ànd ak tuuti tuuti. sax ah tenue de combat ah Ali envoyé sur les roses. kan moo la Ali ban la. contentieux avec la banque atlantique. La Cour d'appel de Thiès estime sa saisine sans objet. La Cour suprême annule la, dette, la dite requête. la requête, l'homme d'affaires privé du prêt de 400 millions sollicité. xam man la ma comprendre. Mm-hmm. bon bref je respecte. hôtel Souma assistance suite et fin les lundis de Madiambal. tonton ñu ngi laa nuyu bu baax Diagne. ñu ngi laa nuyu bu baax Diagne Diagne. appel au calme du QDIS et de l'APR tension politique l'école de la santé en ébullition série d'arrestations oui c'est c'est malheureux euh, le regard l'APR tient son conseil de guerre la ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même la presse tombe dans les travers mm. ngeen baal ma même la presse et après quelqu'un me dira pas Assane limite-toi à faire ta revue de presse ne commente pas bii ne dama commente dama commente ba suba conseil de guerre lan. guerre kan même si c'est au sens figuré il y a des termes qui font que on devient violent de plus en plus on est violent même dans la presse on est violent parce que lii xam nga quoi. c'est le stimuli de nos discussions à la base mooy ni ñoo waxtaanee au téléphone ni ñoo waxtaanee entre nous ak les politiques et cetera. Mm-hmm. ka ci nekk selon les enjeux et intérêts ñi ngaa waxtaanal vous titrez comme ça. Et c'est malheureux. C'est-à-dire qu'on on dépasse pas, c'est incroyable. Conseil de guerre, le regard, loolu la wax ñu ñu respecter leen ñu respecter loolu situation politique déclaration attendue de Idrissa Seck etc. Les échos les cours suspendus le secondaire en grève le supérieur averti les vacances de Pâques débutent ce lundi 27 alors qu'elles étaient prévues le 31 mhm. ci guddi la bi génn démb ci guddi la communiqué bi yàlla a les enfants dem ki dañoo créer benn benn benn genre ambiance boo xam ni yaram yi sax dafa bañ les gens n'ont plus envie de rien loolu baaxul ci dëkk on crée une psychose une tension ci loo xam ne warut a am 2023 Sénégal dafa war a neex même bu dara amul mais réew président mais réew day dox ci yaakaar nit bu juddoo yaakaar a tax muy xëy di dem di dikk di yaakaar ma hopp espoir li ma sama xarit bu mag ba di wax Ibrahima espoir hope moo tax nit di dund moo tax nit di jóg nit dina tëdd ba mu yàgg découragé jékki-jékki am fu xelam dem rek mu jóg. yaakaar a tax waaw boo ko xañee yaakaar bi ba pare ne ko àndal ak man du ànd ak yow dalay daggal mais bàyyi leen nit ñi ñu am yaakaar. xam nga ne xale boo xam ne day jël gaal dem ñu refule ko delloosi ko mu jëlaat gaal dem kooku ragalul dee bu ko poussé ci xeex. dëgg dëgg waxante dëgg. Macky menace photo de trouble la presse laa aussi la presse Cheikh Omar maa ngi laa nuyu ndaw maa ngi laa nuyu bu baax plainte de Benno Bokk Yaakaar contre Ousmane Sonko Ousseynou Faye s'en démarque et accuse les initiateurs d'avoir outrepassé leurs prérogatives présidentielle 2024 Karim Meïssa Wade hmm, le PDS annonce son retour prochain au Sénégal diffamation outrage faux et usage de faux présumés Frédéric Nappel porte plainte contre Babacar Touré directeur de du site Kewoulo Info menaces et diffamation présumées via les réseaux sociaux une journaliste traîne son ex-mari et Ousmane Tounkara devant la justice. xaalo. nappel moo nekkoon ngi porté woon plainte Ousmane Sonko. xaalo xaalo. Le Soleil. un excellent journal. je lii journal bi dafa nekk suñu xol depuis sunu ay maam dañoo judd gis sunu ay maam abonné ci Soleil ñu kaa liir nekk xale gis ka bëgg ko. Et si pour man, c'est le journal le mieux écrit dans ce pays-là. Mais Sénégalais yi amuñu daluñu ko sax duñu ko sax xool. Mhm. parce que parce que ligne éditoriale bi ni ñu ko tënkee moo dem ba safut nit ñi. te pourtant voilà un journal que les gens doivent lire parce que lépp luy boo dindee aspect nguur gi nga dem dans le fond il y a des sujets tellement intéressants à gogo. par de grands journalistes mais mais mais sunu ay acteurs politiques ñoo sonal nit yi ci lan la wax sax moom it man bala may romb reprise des travaux de l'autoroute Mbour Fatick Kaolack la direction de l'APR réorganisée par son président li ma doon wax sànq vous avez vu les autres journaux mm-hmm. c'est la presse privée tu as l'impression que ñoom ñoo gàddu xeex bi ñoom ñoo ngeen baal ñu nag euh, copain journaliste xoolal noo ko gàdd nag ne nii xulil taxaw nag raak nag conseil de guerre combat kii xool leen le soleil bi ànd ak état bi ils sont plus mesurés la direction de la est réorganisée par son président loolu moo gën a nekk lu information mm-hmm. loolu information la et il s'agissait de cela en fait mais regardez comment la presse privée l'a titré tu as l'impression que ñoom ñooy soleil <laughs> au moins Mbour Fatick Kaolack c'est crédible c'est un projet immense il faut nous montrer ces informations la au détail près mais pour nous les montrer il faut ngeen génne aspect lancement de projet nguuru Sénégal bàyyi leen bu ngeen di euh, projet bu bees ngeen def lancement bi def ko cérémonie bàyyi leen loolu xanaa booy cérémonie sax nga bàyyi ba mu pare chantier ba waaye lancement chantier bu pa ca digg ba ñu ne way président wala ministre demoon na xooli chantier ba ngeen cérémonie que la laan c'est folklorique te lool c'est depuis le colon lu nu war a bala kilifa yi vraiment c'est d'excellents projet mais du am visibilité du am lisibilité parce que du ngeen nu may jàmm bu nu ko talee ba koy dégloo ko liir lépp ngeen teg ko ci xeex ak exclusif présidentielle liberté Mimi Touré et Cheikh Niass parlent au chef de l'État Mamadou Wane le directeur de l'enquête dont je parlais journal qui parle de rempart en péril rempart en péril mais parce que nous tous nous sommes responsables rempart en péril euh, si la presse qui doit être sentinelle ne l'est plus si si si si si forcément les remparts sont en péril Mamadou désolé mon grand troisième candidature second quinquennat Macky Elan et Aise Benno prend date pour 2024 incha allah yàlla ñu yàlla may fekkee tal libération une sombre affaire de magie noire ça c'est fait diversier mmh. Hmm? alors euh, libéré samedi soir le docteur Niang retourne à la sécurité urbaine lundi docteur Seydou Diallo et Mbagnick Ngom convoqués les médecins convoqués pour leur dire quoi lan moo ne ci dossier diw lu ci nekk lu ci néew la quoi la médecin ne doit pas le dire il va pas le dire. Mm. léegi bu ko waxul da nga koy jàpp. da ngay jàpp ay médecins parce que waxuñu secret médical. mais gars yi di yéen tamit nag gars yi nag lépp ci topp benn adversaire politique gars yi tuuti la tuuti sax ñu dem ak xel quoi. xool simple da leen a réer. Bignona enterre Mamadou Korka Ba mhm. dans la douleur yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, di masawu njabootam. di ñaan yàlla xarit ko aljana gën a kawe kàttanal mhm. la. Mhm. te lii yëpp mënoon na ñàkk. lii yëpp mënoon na ñàkk. ñii moom sombre affaire bi ay nit la yu dem sulli ay nit yu ñu denc bu yàggul pour magie noire pour ay liggéey. subhanallah les africains ndeysaan. xalaatuñu dee déet ñëwal fait divers encore N Gueye âgé de 16 ans poignarde à mort la copain de sa cousine subhanallah ah lii quotidien la fin d'un compagnonnage moom mu ngi ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall révision des listes électorales le PDS exige un audit indépendant du fichier lu baax la excellent discours de résistance de l'opposition Mary Teuw Niane se démarque et prône la paix Merci, professeur. Synergie républicaine préconise la tenue des, pro de lan, des procès impliquant Ousmane Sonko pour un retour au calme. Diagne Naar sama mbokk ab canaba la nuyu bu baax Moustapha Diagne hmm? bu ministère de l' kii l' éducation nationale waaye nag Diagne Diagne Diagne Naar bàyyi leen Ousmane Sonko laa ilaha illallah sayyidina Muhammad sénégalaise ñëpp dugg nañ ci c'est-à-dire tout le monde lu Sonko loolu baaxul 24 heures sur 24 vous le renforcerez vous le plus fort bu ngeen xool beneen stratégie beneen stratégie bu yomb rek xam nga nit moom boo dee xuloo moom xulil bu ngeen dee xuloo boo ko ignoré léegi coow li wàcc ba ignoré leen Ousmane Sonko léegi rek coow li wàcc. mais apparemment c'est pas facile pour eux l'indépendant mbayanta journaux yi kañ ah 11 ans de scandale de pillage et de bamboula je ne dirais pas que c'est la titraille du jour hein? mais comme qui dirait comme Moussa Diaw dirait c'est il y en a eu des scandales pillage bamboula je sais pas. fekkewu ma mais scandale yi bare na hmm? alors il y a une information ici boo hmm. xam ni sincèrement hmm. celle-là concernant cette fille-là je le dis pas je la dis pas cette info je la lis pas parce que cette info warum génn ci média bu sérieux lii quand quelqu'un se déclare dans une relation contre nature les gars de la presse sénégalaise nom de Dieu gars yi xool di liggéey quand quelqu'un est dans une relation contre nature fii suñu réew ñun du lu muy wane du lu muy vulgariser gars yi yéen tamit dañu waxante dëgg rek une personne qui sort du néant kenn xamuk mu taxaw naan je suis nangam pourtant ngeen koy génne muy influencer suñu ay doom suñu ay jaboot suñu ay kii mu mel ni c'est normal. est-ce que nekkul euh, euh, lépp lan dara bëgg jaay. Mm-hmm. mooy li ma doon wax sànq cette presse souffre économiquement et se cherche de partout mm-hmm. lii kenn du ko génne à la une. l'info Alioune Ndoye sans langue de bois hmm? la belle chronique de maam Ngor Ngom la tentation du diable la candidature de Macky une exigence monsieur Ndoye ñu ngi laa nuyu bu baax kilifa bi seen mbokk ab Ndakaaru ñu ngi laa nuy ba baax le maire de Plateau ñu ngi laa nuyu ba baax la ziar moo la maire de Plateau de. Hmm? moo la maire Plateau ah. Dakar Plateau. alors il dit la candidature de Macky est une exigence. je vais lire je vais je vais lire vraiment ce qu'il a dit bon Arona Ndofène Diouf invalide la candidature de Macky Sall d'accord ci nee na par morale et par décence moom mi bokkoon coalition Macky 2012 d'accord ci. Hmm. loolu am na ñu bëri ñu si d'accord na ñu bëri dinañ wax après ñu bëri président ñooñu dinañ wax de dañuy ànd ak yow nii rek di gérer alors. Euh, secrétaire national exécutif secrétaire exécutif national de l'APR Macky Sall sonne la mobilisation et confie la tâche à Farba Ngom ok hein? allongement du congé de maternité les femmes médecins prônent l'installation de crèches dans les entreprises c'est une excellente idée yàlla ko yàlla mottali def ay crèches ci entreprise yi mm-hmm. pour que seen yaay di ñëw di liggéey mm-hmm. mais xalaat leen télétravail aussi la femme peut gérer son son bébé à partir de chez elle et nekk ci télétravail loolu aussi possible na. Mhm. quand bien même on nous dira télétravail législation tout ce qu'on veut mais télétravail solution la aussi coronavirus dañ ko fi def et ça a marché pour certains alors Alioune Ndoye il dit Ousmane Sonko ne devrait s'en prendre qu'à lui-même si jamais il n'arrive pas à se faire disculper des chefs d'accusation qui pèsent sur lui mu teg si le moment où les forces les plus obscures voudraient mettre ce pays dans le chaos nous devrions faire de la candidature du président Macky Sall une exigence au nom des individus des intérêts supérieurs de la nation. C'est ce qu'il dit. quand le bateau doit aborder une grosse tempête le capitaine le plus aguerri le capitaine le plus aguerri ne peut se permettre de quitter la barre juste pour une cosmétique moralisatrice au moment où le droit est pour lui c'est essoufflant. Mm. c'est c'est essoufflant c'est c'est lourd c'est essoufflant. il dit il n'est pas pour l'heure nullement question pour le PS de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar nous n'avons aucune raison de ne pas être satisfaits de notre compagnonnage avec le président Macky si je pouvais légitimement douter des aptitudes techniques du maire de Dakar et de ses collaborateurs pour apporter à mes interpellations des réponses des réponses convenables je ne pouvais tout de même pas imaginer une telle fuite en avant en fait euh, on s'est amusé à lire mais xam nga kilifa bu dee wax ak askan. su wax bi leeree day yomb day facile. mais j'ai lu comme ni wax bi mel. j'ai lu comme wax bi ni mu mel li moo saf li nga wax dëgg la de li moo saf laa ko liiree xëy na nag peut-être keneen ko ànd ak nguur gi su ko doon liiri dana gën a neex amaana dana gën a neex. Mm-hmm. mais comme man d'accord ma ci position bi ni ma kaa liiree mooy ni ma ko sentiree monsieur Ndoye nga baal nu rek billaay je vais pas dire waxoo fi dara avec le respect qu'on a à votre endroit mais je dirais que en tout cas ce discours daan na gën a pertinent que ça. Hmm. après nag ka si nekk ak sa position nous respectons humainement nous respectons. alors l'observateur force occulte les détails d'un projet funeste. la nouvelle vie, un an après l'évasion russe, la nouvelle vie des Sénégalais qui ont fui la guerre en Ukraine. Crépin dans des couloirs sombres, équipe nationale. Alors, L'observateur. Ah, bon, APR, Macky enfile sa tenue de général. la presse écrite privée ñoo fi wax général combat guerre soleil bi ànd ak président Macky Sall ñëw sobrement wax que organisation la d'un parti politique qui se restructure dans un sens li rekk la te parti bu ne sañ na ka mais c'est la presse privée privée qui semble-t-il a plus intérêt à renforcer l'affaire titre sénégalais yi à dire que c'est la presse privée mooy titre sénégalais Là-bas, ils ont parlé de combat, de l'autre, ils ont parlé de, de guerre, maintenant on parle de général. Et vous voulez quoi que les gens disent quoi C'est difficile. Le parquet monte au front cette semaine. Alors, il dit, force occulte, les détails d'un projet funeste. Ancien du bataillon de commando euh, FM arrêté avec des cocktails Molotov. ok Une partie des explosifs retrouvés avec jiba dans l'hôtel appartenant à un membre du groupe. Expert dans le maniement des armes et artificiers, Kaba était le coordinateur des activités subversives. Alors, mes amis de l'Observateur, vous ne pouvez pas mettre FM ici et mettre des noms ici. Ça dérange. Gaï, nous avons une bonne pour l'un, mais nous sommes des amis, des collègues, des confrères. Nous sommes des potes. ce journal la ce journal la amul benn nit biir l' observateur bu fa toog tey di fa liggéey njaga maa ngi laa nuyu le directeur publication bu fay liggéey tey bu ma gën a xam journal bi amul ba ñuy jógee populaire pop l'original bàyyi ko fa Youssou di monter Futur Média pour ñu def pop original jóge fa def l' observateur bii nga xam ni le premier tirage c' est entre deux mille trois mille exemplaires jóge 2000 3000 exemplaires Thierno Talla ñëw Moustapha Sow dem Thierno la ñëw mu jóge 2000 3000 exemplaires dem 11000 exemplaires 11000 exemplaires mars 2005 moi j'y intégré par la grâce de Dieu et la confiance de Youssou journal supplément bu ñoo wax ici kilifa yu bëri xam nañ ko ici c'était intégré dans l'Observateur on est parti de 11000 Chérif Diagne a ngi maa dégg l'ancien directeur commercial on est parti de 11000 exemplaires Cheikh Oumar Ndao tu étais là yow yaa moom les échos tey Thierno moom l'info il était là-bas le patron on est parti de onze mille exemplaires Chérif Diagne a ngi ma dégg yaa distribution bi à vingt cinq mille exemplaires car on a intégré ici après Alioune Ndiaye est venu on est parti de vingt cinq mille à cinquante mille et ainsi de suite et l'observateur est parti à cent mille exemplaires aujourd'hui est-ce que l'observateur est à cent mille exemplaires il faut se poser la question pourquoi donc kër gu xam la je suis désolé de le dire vous ne pouvez pas mettre FM ici mettez le nom FM pour être cohérent et en bas on met Djiba Kaba Sagène même bu dul dara ngeen baal nu rek ah même bu dul dara lii day yàq projet prise baaxul daf kaa discrédité baaxul baaxul te benn nguur jaru ko ëllëg dafaa ñëw jaru ko la colère gagne Thiès alerte après Guédiawaye qui dénonce un complot politique contre Habib Niang les journaux aiment Habib Niang yal na yàlla yokk ko kàttanal ko Walfadjri quotidien l'école dans la rue des mardis arrestation d'élèves et d'enseignants c'est dommage mm -hmm. si je suis élu Abdoul Mbaye candidat à la présidentielle de 2024 hmm? je vais vendre l'avion du président comme signal fort ma priorité la lutte contre la faim dans les zones rurales nos gouvernants ont pris l'habitude de tromper le peuple par des chiffres à milliards le FMI a accompagné les gouvernants du Sénégal vers le vers le mur le CFA est la monnaie africaine la plus performante xale yi gëmatuñ lool de président Abdoul Mbaye son changement de dénomination n'apporte aucune plus-value technique mais il est important je suis incapable de vous dire si l'éco circulera d'ici vingt ou trente années Abdoul Mbaye ñu ziar kilifa bi promesse de campagne Tekki veut réduire les pouvoirs exorbitants du président libération sous convocation du docteur Nia donc dikkaat na ci ci le pouvoir cède à la pression syndicale troisième candidature Macky prépare ses troupes alors Idi tient à son destin déclaration Idrissa Seck moo nekk à la une de Rewmi quotidien ah journalu kilifa bi Mbagnick Souche maa ngi laa nuyu ba baax sama kilifa bi maa laa nuyu ba baax un bon journal le QDIS plaide le renvoi du procès hmm? Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko le G7 déclenche des journées de débrayage enseignants yi et Maïssa Mayakor Diouf sur un éventuel départ de Idrissa Benno n'en sera jamais altéré Benno nag instant bi nii da ngeen a altéré de yéen du du ay Idrissa Seck tax ngeen altéré ou pas population sénégalaise ñoo leen liquéfié vous étiez solidifié maintenant vous êtes liquéfié eh, Benno ndeysaan et qu'est-ce qu'on n'a pas fait et dit pour ce cette coalition Benno mm-hmm. Bokk mm-hmm. nous étions admiratifs de vous en 2011 on écrivait on disait malheureusement voilà le destin mm-hmm. source A illégalité et panique principaux ense de la décision de l'État de ramener au 27 mars les fêtes de Pâques initialement prévues au 31 le 20, le 31 mars vendredi. waaw décision bi nga xam ni ministère de l'éducation nationale jël na ko journal bi. Hmm. dafa jàpp ni. mel ni état bi dafa tiit jaxasoo jànnaxe ndax projet de manifestation yi am. Mm-hmm. léegi nag manifestation yi sax état bi ci décision bi dooleel nag source a loolu la wax moom tu loolu la jàngat ci ci page cinq am donc euh, ça te pourtant il suffit juste de laisser les gens marcher il y a aucun souci il y a aucun problème et j'espère que nguur bi dina am dépassement boobu quoi j'espère. Ah, Macky Sall prêt au combat. risque de déferment bi ñu doon wax sànq pour docteur Niang docteur fi la ngeen di def médecins yi bloqué dëkk bi rek. l' autre côté. dëkk bi taxaw après tu te poses la question léegi xanaa da ngeen gàddu ay yam ne dóor médecins yi dem leen liggéey dóor enseignants yi dem leen jàngale ji. si loolu ngeen bëgg a dem. mais ñu fekk leen seen kër jël leen. par force mais mais yi nguur nguur ngaa la nguur kenn ko yor ci règlement de compte ak ego. Mm-hmm. moo tax président même son casting laa la wax ni nit yi ko wër daf leen war a xool xool yan fas quand vous n'avez pas de maîtrise vous ne méritez pas de diriger sago ko amul mënut a jiite mais mer man xamul lu ma xamul comprendre man damaa mënul xam Sénégal ka fi nekk yor salaire u deux millions trois millions quatre millions cinq millions di mer looy mer. li problème bi. luy problème bi vous avez l'État vous avez le pouvoir vous avez l'argent vous avez tout. Hmm. pourquoi nom de Dieu vous fâchez yéen a ngi ci dëgg jarul mer. yéen ci li ngeen ne neex na de li ngeen fi ngeen nekk baax na de ah ay leen mer bi waay vraiment lan la Abdou Karim Fofana wax fii sax seetaan na ma ko RTS ki démb une belle émission. Tàndarma RTS et hélas. Sénégalais yi dañu guux quoi dañu guux mer ba toll fii moo tax du commande bi sax boo ko yoree nii di jàpp ay RTS da leen eh, sëñ dimbali ñoo tamit diminution ñii te pourtant c'est une très grande chaîne de télé Abdou Karim Fofana fait le point pénurie de sucre sur le marché disposition prise par le gouvernement niveau d'application des nouveaux tarifs sur les produits recrutement des volontaires de la consommation baisse du coût du loyer maa ko seetaan hmm. il a super bien et tout énuméré mais problème bi du énuméré problème bi c'est l'applicabilité et l'application de la chose li ngeen wax noonu yëpp ndax mu ngi am ci réalité bi foofu la di nekk mbayante journaux yi dina jeex wala du jeex bu jeexul fekk ko fee jeexal ko vers une semaine d'incertitude sortie d'Idrissa Seck série de manifestations de Yewwi audience spéciale sur l'affaire Prodac waaw tout ça on l'a dit mm-hmm. hein, des sages de la paire le Sénégal au défi de la qualité la disponibilité et la sécurité accès universel à l'eau potable Alors, mon mot à dire, la morale politisée, par Félix Zallet, journaliste. Oui, l'excellent Félix. vacances de Pâques, le ministère de l'Éducation anticipe. Bon, Sud, le grand journal, hein, Tribune. Mm -hmm. Le troisième mandat de Macky reste hypothétique pour Macron. Même s'il n'y a pas eu de déclaration de candidature du président Sall, le prix Nobel euh, Wole Soyinka, oui, rejoint le combat contre ce projet. Arona Coumba Ndoffène Diouf conjugue Macky Sall au passé alors face à face inévitable face to face entre Mame ak Ousmane Sonko vers une confrontation finale entre Sonko et la justice les vandales et les agresseurs à l'affût le présumé délit qui justifie les craintes de Sonko Guy Marius Sagna enfonce Macky Sall Mansour Faye et Mame Mbaye détournement de deniers publics la Guy wax ah port vestimentaire de la jeune féminine durant le Ramadan les raisons qui poussent les femmes à changer d'accoutrement c'est bien reportage etc des partisans menacent de quitter Macky frustrés par le sort réservé à Habib Niang. Mm-hmm. boobu beneen kaa ngi noonu Macron ak Macky Sall le président Sall sincèrement xamul lu ñuy waxante mais journal bi junj na ko alors APR est la pénurie de sucre dans le populaire hmm? Idi le dernier coup de poker alors euh, Maguette Sy secrétaire national chargé des élections du PDS notre candidat Karim sera très prochainement ici incha allah. docteur Niang locaux du concessionnaire Mbaye Thiam rasés hier nuit déguerpissement sous le pont Cyprès la révolte de l'organisme Mame Mame Mactar j'ai donné mon aval pour Boy Niang Modou Lô mm, Ama Baldé ok Balla Gaye qui sort de son mutisme Balla Gaye <clears throat> yaakaarul woon ne Boy Niang dana ko daan. Hmm? le cas de Reug Reug m'a provoqué le CNG doit prendre ses responsabilités nee na waa kër Reug Reug ñoo ko tooñ donc CNG dafa war a gàddu ay responsabilités alors c'est Lyon qui complique le choix d'Aliou Wiw Sport Habib Diallo l'excellent buteur actuellement euh, Abdoulaye euh, Abdallah Ndour l'excellent latéral gauche du vendredi l'ingénieur Iliman Ndiaye. Hmm. xam nga baa mu nee football da ngay neex nit yi bal bu mu laal stade bi yuux parce que loolu la yàlla dogal. mun football kii du pour man Aliou Cissé man Aliou Aliou nag man maa la ka wax fii damaa jàkkaarloo ak aw man man lenn rek la laa d'accordul ak yow Iliman Ndiaye du jour booy teg ay 10 minutes 5 minutes wala génnee non bàyyi ko mu éclaté wu. c'est comme sur le cas de Diao dañ ko daan wax Diao c'est un joueur génial qui s'éclate mais malheureusement Aliou loo ko mu éclaté wu premier match Diao Baldé yéen a nga kaa fàttaliku stade l'amitié stade bi yëpp di yuuxu na Diao dugg ñaa premier contrôle lu bal Diao Baldé stade bi dañoo jóg parce que joueur bu artiste da koy bàyyi mu fo mu eh, mu fo artiste doo ko tënk moo tax l'incursion de El Hadj Ousseynou Diouf ci biir tanière bi gis nga vidéo yooyu ñu koy wane muy foo ak joueurs yi foo boobu muy def noonu ça les libère. Mm-hmm. parce que caractère Aliou li muy li muy joxe rigueur bi c'est bien c'est excellent mais joueur football artiste la da nga bàyyi mu reetaan mu fo baa ko tëjee rek mu mu dem et c'est quand et est in intégrer la chose di fo ak ñoom di kaf ak ñoom di reek ñoom ñemeloo leen ci la ñu Diouf avait ça avec Bocandé. Mm-hmm. loolu dafa baax ci équipe donc autant on dira bravo à Aliou pour le le titre mais El Hadj Ousseynou Diouf il est important dans le dispositif capital parce que ni muy foo ak xale yi di football ak ñoom ñu kii eh. Aliou bàyyi Iliman Ndiaye muy football bàyyi ko mu fo ci terrain bi quand même le Maroc est favori wul ki yow reg-rag tàng na nag dóor na Brésil 2-1 toj na coupe du monde ba te pourtant ci ñun lay teere leen. Maroc incha allah rabbi xulil Sénégal Maroc coupe d' Afrique deux mille vingt quatre incha allah rabbi demi finale quart de finale wala demi finale ci kàttanu yàlla di leen dóor ba nit ñi jommi. incha mhm. yàlla ñu yàlla may fekkee tal président Sall loolu bu leen ko yàq ak seen coow yi. bu leen ko yàq bu leen yàq xew bi. bu leen yàq ngalax bi bu leen yàq ngalax bi. les lions déterminés à finir le travail à Maputo dem nañu Maputo la France en déplacement piégeux en Irlande France moom dañu am doole di door ay Pays-Bas 4-0 Ndiaye l'artiste normand des lions waaye vous venez lan vous verrez une autre équipe mozambicaine mardi Sokino mooy yow Chikino Konde mii lu ko dal sélectionneur des Mambas moom Mozambique gi ñu dóor 5 heures naan vous aurez une autre mooy yow. su bëgg ñoo fayu. moo sikkinoo mii moo mooy mooy ay Anta journaux yi kañ lay jeex Boulaye Dia Habib Diallo Bamba Dieng le duel à la pointe de l'attaque fii jarul xëccoo teg leen fi Pape Ousmane Sakho wax ji jeex fii Baye Ousmane. bu senu dëkk bale tëng géej gu nekk Arafat ga ngeen dee teg fii wax ji jeex ñu régler suñu situation lii rekk la il sont à huis clos entraînement séance d'entraînement Maputo Sabali une valeur sur la défense oui un beau but vendredi Jambar reste leader Douane surprend Jaraaf je ne veux pas être un capitaine qui dirige les confidences de Mbappé capitaine France jeex na de. Mm-hmm. <coughs> ñii seetaan ngeen baal ñu si lépp luy manquement wala ëppal wala voilà ngeen baal ñu si lépp loolu bu dee mën ngeen ko ngeen baal ñu ngi leen kañ ñaan ñu ngi tuub di si jéggalu li si baax suñu borom la. baal nañ la hmm? Sénégal ñoo far. amuloo kenn la main gauche les mains du cœur hein les mains du mm-hmm. en Sénégal ñoo far c'est la main de la victoire. nii la bu ñu àndee bloc rek gagné. nii la main gauche main gauche. Sénégal ñoo far la main du d'accord bi voilà. macha allah. Mayante merci. merci beaucoup merci pour tout mën na ma dem de. waay instant moom demal rek nga daal di toog noppaliku nooyuwaat koor gi métti na te yàgg na li des bari bari na. Ah, te suba nga diril ma sa ñaari dir yaa ngi ñu ñëw toog fii. non ñooñu pour.